Abdoulaye seeta ñoo seetaanandoo élément bi mm-hmm. euh, mu ngi koy wax sànq à l'entame de ses propos nous sommes à une semaine de la CAN dem na ba nekk une fierté africaine euh, yéen déjà au niveau de la Fédération sénégalaise de football euh, naka ngeen koy waajalee waaw ñu koy waajal comme ñi nga xam ni dañu bëgg dellu ci CAN boobu pour confirmer suñu titre xam nga il n'est pas difficile wax naa ko quelque part de se hisser au sommet mais ce qui est difficile c'est de se maintenir au sommet yàgg nañu di dem di ñàkk di ñëw ñan ñi sax di ñu titiller naan Sénégal dafa am ay footballeur mais duñu pays de footballeur de football. Mhm. mais bi ñu génnee si at bi ñu am lu bare lu ñu wone gagné CAN bi gagné yeneen trophée on a gagné cinq trophées majeurs at bi passé mhm. les gens commencent à dire que maintenant le Sénégal est un pays de football commencé di ñu bàyyi xel donc ñu ngi préparé wu di dem pour gagné jiwaat coupe boobu mais xam ni aussi du lu yomb mhm. donc on va y aller avec beaucoup d'humilité en respectant nos adversaires mais également di dem step by step dañu dem ndànk ndànk mhm. préparer def euh, li ñu war def yow xam nga le haut niveau Moi, je, fais, je suis de la CAF. Le haut niveau, c'est l'organisation, la préparation ak naka ngay voyager. parce que booy xool équipe yëpp man football. aujourd'hui toutes les équipes se valent booy dajeek euh, Cameroun dafa ma ni booy dajeek Algérie booy dajeek Algérie dafa mel ni booy dajeek Niger bi ñuy football le huit. donc li si des mooy les détails c'est les détails qui gagnent la compétition naka ngay aaree sa groupe. nekk si benn hôtel bi nga xam ne da ngay bunkeriser ba do benn agression du la perturber agression yi mooy supporters yi war ñëw di naan dañuy seet si joueur journalistes yi war ñëw naan dañuy interviewer kenn euh, agent yi war ñëw naan dañuy wut si ay joueur donc yooyu yëpp da nga koy aar donc enfermé wu même ñun au niveau de la fédération dafa am ñi nga xam ñoom ñooy nekk ak bi am ñi nga xam ne duñu nekk ak équipe bi duñu sax jege équipe bi xëy na bu ñu gisee joueurs yi entraînement lañ leen di gisee donc compétition noonu lañ koy préparer c'est pas uniquement sur le terrain mhm. mais la compétition ça se gagne sur les détails et que nous on est conscient de ça on est conscient qu'on a une équipe qui peut remporter cette euh, cette CAN là mais on est conscient également que on est nous sommes attendus par tout le monde. waaw ñu ah, ngi ñuy xaar ñu ngi ñuy xaar ñëpp ñu ngi xaar